nee na ñu baamuwaat ko waaw mënees na ko baamuwaat kay ak sa waaw kay ma ne sonn ci ki jara sonn jar koy mujjam sonn ci ki jarul sonn jaru ko mujjam bëgg ki jara bëgg jar ki jarul bëgg jaru ko mujjam topp ki jara topp jar na koy mujjam topp ki jarul topp jaru koy mujjam borom Tuuba mooy ka ko jar sëñ maam Cheikh mooy ka fa jëm jar na koy mujjam nag daa gën jaru koy mujjam kon jara sonn ak jara bëgg ak jara topp Cheikh Ibrahima Fall Lamp rek ngir jaroon na koy mujjam waaw ñu boroom Touba maanaam lu waaye di am bañ naan jar na ko am borom tuubaa ak ngërëmam moo ko faw ko borom Touba ak ngërëmam nag mënee su fa àgg te doo aw ci yoon booy dem cib dëkk di wuti tax xam ne la ngay wut lépp a nga fa àgg fa moo la ko tey jot da ngay fexe ba amuk sonn ak bëgg ak topp ca la la fa mën a àggale borom Touba mooy dëkk ba nga xam ne lu waaye di wut am na fa àgg fa moo la ko tey jot sëñ maam Cheikh nag mooy ka fay jëmale kon jara sonn nag jara bëgg ak jara topp Sidi Ibrahima Fall rek waaw ngir jar na koy mujj moo tax ma ne yow ki mën ki la mën ka ko mën la ko jàngal la ko tax mën loolee gisul benn Sidi Ibrahima Fall li ko waral mooy koo xam ne boo toppee ci ci ci ci di ko roy ci fànn yëpp ci Sëñ Tuubaa rek ngay mujje kooku moom eh, moom moo kooku kooku rek a jara jara sonn moo jara bëgg moo jara topp waaw tël tël te moo faw ko ñëpp ci sëriñ bi nag waaw moo faw ko ñëpp ci sëriñ bi waaw loolu eh, Cheikh Amadou Fadal firndeel la ci ci sooral bi nga xam ne moo sut ci li nekk Touba te Cheikh Ibrahima Fall lañ lañ lañ ko tuddee